salawaatullahi wa salaamuhu alayhi thumma amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte kontante ci xéewal gi ñu yàlla subhaanahu wa taala dottil defal ñu ko ba ñu dajawaat ak ci seen émission bu am solo bii nga xamante ni dañ ciy jàngat li nga xamante ni moom moo di aaya yàlla yi alquran ji nga xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala li mu ci wax rek dafa neex duma ma dem beneen saar waaye saar wi nga xamante ne nii moom la ñuy càmbar di ko jàngat am na ay gaay yu baax yoo xamante ne nii bañ leen laajee lan la leen yàlla jox la yàlla wax dañ ni qaalu xayraa biñ leen laajee waa alquran ji lan moo ci nekk qaalu xayran dañ ni yiwi neen moo ci nekk bànneexi neen moom moo ci nekk ndax lan moo tax inna hadha al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam téere yàlla bii mooy téere bi nga xamante ne nii ku ci mooy ku ci jàpp rek daf lay jëme fa nga xamante ne nii mooy fa yàlla subhanahu wa taala bëgg mais képp ku ko dummóoyu képp ku ko dummóoyu képp ku ko bàyyi rek dangay daanu kon nañu sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewal yi mu ñu defal moom moo ñu toog di jàngat li nga xamante ne nii moom moo di téere bi waaye mbokk mënuñu koo jàngat di ko càmbar te duñ jaajëfal li nga xamante ne nii moom moo di Bachir House nga xamante ne nii dañuy jàpp ci liggéey bi teg ci seen loxo képp koo xamante ne nii soxla na leen rek mën nga ko ak ñoom ci numéro yooyu nga xamante ne nii moom mooy feeñ ci suuf nga xamante ne nii lépp lu jëm ci biir kër ci wàllu meuble incha allah rabbi boo fa demee di nga kontaan ndax di nga fa gis loo xamante ni nii doo ko gis faneen mbokk yi. waxoon nañ leen ko ci àjjuma jële weesu ne woon nañ leen dañuy ñëw ak yéen ci aaya yu am solo ñaari aaya rek ñaari aaya yoo xamante ne nii li mu ëmb moo bari ñaari laaye la mais yàlla subhanahu wa taala di ci tagg gaa yu baax te mooy saxaaba ya saxaaba yi nga xamante ne nii ñoo bàyyi woon seeni dëkk fa ñu juddoo fa ñu fowe fa ñu màggee am ñoo xamante ne sax dañ faa bàyyi seeni soxna ak seeni doom ni leen ñoo ngi dem ndax lan moo tax ngir yëkkati kalimatullah ngir tasaare lislaam ngir xeexal lislaam looloo waral ba tey jii ñu ñu jot ci saxaaba yooyee gàddaayoon bàyyi makkatal mukarram demoon xabasha mbaa bàyyi makkatal mukarram dem fa nga xamante ne ni moom moo di madinatul munawwara demoon fa waaye ka ko digaloon sax muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam même moom mu mujj a gàddaay daal di fekki ñi nga xamante ne nii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 gaa yi nga xamante ni dañoo gàddaay bàyyi seeni kër bàyyi seenu njaboot mbokk yi xool leen abu salama ab saxaaba di gàddaay ànd ak soxnaam ummu salama ak seen doom ju ndaw salama ndeysaan bi ñuy gàddaay bay génn màkka mbokki ndaw si daal di ni ko dañ laa mayoon jabar waaye mayuñu la ko pour ngay génn ak moom màkka naan da ngay gàddaay di dem faneen ak faneen suñu doom ju jigéen du dem abu salama daal di tourné xool soxna si ni ko bëgg naa la lool sama doom ji bëgg naa ko lool waaye wax fa dëgg yàlla islaam moo ma la gënal moo ma leen gënal yéen ñëpp damay rawale sama diina maa ngi dem ndeysaan wallahi abu salama noonu la bàyyee soxnaam màkka bàyyi fa doomam ummu salama aw boog salama ak soxnaam ummu salama bàyyi leen fa daal leen di wan ginnaaw daal di dem gàddaay abu salama dem na bàyyi na soxnaam màkk ak doomam kan moo nangu soxnaam mbokki soxnaam ñoo ne ko ñoo la mayoon jabar waaye ñoo ko nanguwaat kii du dem mbokki waa ji mer attaqué famille ndaw si ni leen xale bi suñu doom ju góor moo ko jur dañ koy nangu daal di nangu xale bi allahu akbar soxna si moom kase mu daal di des ana borom këram gàddaay na ana doomam nangu nañ ko ndeysaan soxna si it continuer des ci diineem newul xaaral ma tubbiwaat nekkaatu bi yëfër amaat borom kër déedéet daa continuer ci diineem saa yu xëyee rek génn daa di dugg ci àll bi di jooy fu nekk mu jaar fa ngir dem fa nga xamante ne nii moom moo di Madinatul Munawwara waa ay mbokkam bañ ni ko doo dem mbokk ya si jëmi boppam bañu ñu demee ba sonn ñoo ko mujj a bàyyi ni ko léegi foo xam nga jëm ndeysaan ca la daal di jug nag ànd ak doomam ja daal dem jëli jiwaat doomam ngir gàddaay jigéen yor doom ju ndaw war a gàddaay ak moom war a topp désert bi ngir rawale li nga xamante ne nii moom moo di diineem yàlla def ci xéewal mu tase benn waay waaja moom mu ko yóbbu ba madinatul munawwara ba jub madina ni ko madinaa ngi nee ni ko dëkk yee ngay seen nee mooy madinatul munawwara daal di tourné daal di koy bàyyi ndeysaan mu daal dugg Madina daal di fay fekk ki nga xamante ni moom moo di borom këram ummu salama moomu yàgg tuuti ñu faat borom këram mu daal di faatu mu daal di toog ndeysaan teen ji borom këram dese ak ak jirimam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jaale si ko ni ko yàlla na la yàlla mayaat ku gën abu salama mu siggi xool ko daal di jooy ni ko fu may jëlee te gën abu salama ba mu summee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw daal di koy takk daal di koy def soxna ndeysaan mbokk yi xoolal famille bii dañoo gàddaay ñoom nag la yàlla subhanahu wa taala ak képp ku def li ñu def ñoom la yàlla tagg fii walladina haajaru fi llahi min di ma zulimu lanu bawwi annahum fi dunya hasana yàlla nee na gaa yi gàddaay bàyyi seen dëkk ginnaaw bañ leen fa xatale gannaaw bañ leen fa bundu xatale dóor leen saaga leen lu nekk ñu def leen ko ba ñu génn màkka lanu bawwi annahum fi dunya xasana dinaa leen wutal fu ñu dëkk te muy mooy a wara ba pare wutal leen foo xamante ne nii bu ñu fa wàccee danañ fa am ay noflaay danañ fa am li nga xamante ne nii moom moo di bànneex moo tax yàlla daal di wax ni fi dunya xasana saxaaba yooyee ñoom lañ doon xas ñoom lañ doon dóor ñoom lañ doon saaga waaw am na taalif bu ma defoon di ci wax ci lii nga xamante ne nii moom lañ firi nii tey nga xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ni ginnaaw bi ñu leen tooñee bunduxataal lan génne leen li nga xamante ne nii moom moo di màkka wa inni bi bismillahi laa doore yi ngërëm di kañ gaa yu baax yoo xam ne buur bay kii leen gërëm yeneen ñëw gërëm leen fonk leen lool di leen teral di leen kañ di leen ñaanal te boole ci ak xamal ñi may wax de yow mii nii da toog ñooy saxaaba ya ka Ousmane wa Hassaan yeneen gaa yu sàmm ya amul luñ dajul ñoom ñii ci ay xeeti mettital di leen dóor di leen saagaa ka xas ak di leen sonal di leen tubbiloo naa leen de waay saaga leen nabi yeneen sax de waaye daa mujj dem génn dëkk bi te mooy Makka ànd ak Babacar mii ko njëkk gëm ñu dem fekki gaa yoo xam ne ni duñ ko mos di bañ mooy ba ñu gàddaayee ndeysaan moom yonent bi ak abu Aboubacar ak saxaaba ya daal di dem fa nga xamante ne nii moom moo di Madinatul Munawwara ba yàlla may leen fa ndam mooy xeex ba njëkk a xeex ak waa Màkka muy xare Badar ndeysaan ba ñu mujj di dem di dem ba ñëwaat ubbi waat fi nga xamante ne nii moom moo di màkkatal mukarrama moo tax ma wax ni saxaabay rasul ñoom ñii dañoo xeexi woon Badar Uxud Xaybarin yar Yarmuk Tabuuk ñii wa am xadar wa mutata ahzaabin dañoo gas ba am ngërëm ba yéefar yi egsee gis dañoo tiit ba far gëlëm mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala nee na wala ajrul axirati akbar yàlla nee na saxaaba yi bàyyi nañ ma madi màkkatal mukarram gàddaay dem madinatul munawwara may naa leen ay ndam xare badar donte ko gañe nañ leen uxut waaye ñëw mujj ñëwaat ba ubbi màkkatal mukarram mu nekk ndam lu rëy waaye wala ajrul axirati akbar law kaanu yaalamun wala ajrul axirati akbar la leen dencal yawmal qiyam moo gën a neex fuuf moo gën a rëy law kaanu yaalamun xam ngeen émission bee passé ne woon naa leen am na secret yu fi nekk moom laa leen di wax fii ci lawkaanu yaalamun lawkaanu mun bu la neexee nga yóbbu ko ci yéefari bu la neexee nga yóbbu ko ci saxaaba yi gàddaay bu la neexee nga yóbbu ko ci gaay yi tuub te gàddaayuñ lawkaanu yaalamun yéefari bu ñu xamoon ni li ma dencal gaay yi moo gën a neex moo gën a rëy dinañ gàddaay aka neexoon ñu xam law kaanu lawkaanu yaalamun aka neexoon ñu xam li ma dencal gaa yi ba ñu gàddaay wala boog ba ñu tuub dugg ci islam gàddaay ñoom yéefar yi wala nga ni law kaanu yaalamuun ay waay gaa yi tuub dugg ci islam te gàddaayuñ bu ñu gisoon li ma dencal ñi gàddaay dinañ jug gàddaay law kaanu yaalamuun aka neexoon ñu xam li ma dencal gaa yi gàddaay ba ñu jug dem gàddaaye ji waaye ñetteel bi law kaanu yaalamuun gaa yi jot a gàddaay ba dem madinatul munawwara ak lu ñu fa dund bànneex ak lu ñu fa dund ak ndam law kaanu yaalamuun ak a neexoon ñu xam la leen dencal moo gën a rëy fuuf wala ajrul axirati akbar law kaanu yaalamuun beneen sew-sew bi nekkaat ci laaya ji boo yégee ca kaw walladina haajaru fillaahi gaa yi gàddaay ci yàlla fillaahi fii fillaahi fii ji taalil la bi maanaa fii sabilillaahi gaa yi gàddaay ci yoonu yàlla waaw li ilaa'i kalimatillah ngir yëkkati kàddug yàlla te mooy islaam xam ngeen jàng ngeen benn xadis yonent bi saa sam day wax ni am na benn jigéen bu musa dugg safara lan moo ko fa dugal am muus daxalat imraatu naara fii hirratin fii hirratin jooju noonu ay li sababi hirratin li ajli hirratin gis ngeen xarfu fii prinça day yor al illa laaye ji fii loolu lay firi walladina haajaru fi llaahi ay fii sabilillahi mooy ñi gàddaa ci yoonu yàlla yàlla subhanahu wa taala lan la jeexale laaya yi alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla nee na gaa yooyu gàddaay mooy ñi nga xamante ni dañoo muñoon ñi nga xamante ni dañoo muñoon alladina sabaru waaye yemuñu ca de wa ala rabbihim yatawakkaluun te ci seen boroom la ñuy wàkkirlu déglu leen bu baax ni ma firee laaya ji yi muñoon te ñoom ci seen boroom la ñuy wàkkirlu sabaru fi'lu maadin la waaw verbe boo xam te ni dafa passé passé la waaye wa ala rabbihim yatawakkaluun ñoo xamante ni dañuy wàkkirlu ci yàlla guddeeg bëccëg suba ngoon lan moo tax yàlla subhanahu wa indi fii ci laaye ji fi'lu maadi ak fi'lu mudaari alladina sabaru ba pare mu daan ni wa ala rabbihim yatawakkaluun normalement kay dañoo waroon ni alladina yasbiruuna wa ala rabbihim yatawakkaluun mais yàlla daan ni alladina sabaru indi fi'lu maadin parce que seen muñ nga daanaka jeex na parce que am na ndam dafa mel ni am na ndam moo tax yàlla daan ni alladina sabaru mooy gaa yi muñoon gis nga boo muñee dafa mel ni am nga ndam wallahi alazim képp ku muñ yàlla teg la muñ ko dafa mel ni am nga moo tax yàlla daan ni alladina sabaru waaye wakkirlu ci yàlla nag du jeex bis bu ci da ngay wakkirlu ci yàlla guddeeg bëccëg suba ngoon ba ba ngay wuyu ji sa boroom da ngay wakkirlu ci yàlla moo tax mu daan ni wa ala rabbihim yatawakkaluun ban sew sew moo ci nekkaat képp ku bëgg ndam ci sa adduna da ngay muñ ba pare wakkirlu ci yàlla di sabablu waaw wakkirlu ci yàlla gi mooy firi sabablu gi waaye nga daal di muñ waaye loo dugg tey rek mu metti nga daal di bàyyi te doo wakkirlu ci yàlla doo musa am ndam àdduna dara neexu fi loo dugg muñal te jël mbir yépp wékk ko ci yàlla subhanahu wa taala wallahi yàlla may delloo waatoon màkka yonent bi saa salaam yonent bi delluwaat màkka saxaaba yi delluwaat màkka ba yowmal qiyaam lépp loo yóotu ci sa adduna nga ànd ci ak muñ waaye wakkirlu ci yàlla jël lépp dénk ko yàlla subhanahu wa taala insha allahu bis dina ñëw di nga ci am ndam loolooy li yàlla subhanahu wa taala dogal te loolooy li am ci kaw suuf kon mbokk yi nañu muñ waaye nañu wakkirlu ci yàlla subhanahu wa taala alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun mbokk yi incha allahu ñu taxaw foofu ba beneen ajjuma ñu daal di ñëwaat ak yéen ci leneen laaya yu am solo ci suuratu naxli kon teg leen foofu seen baaraam yal nañ yàlla subhanahu wa taala dafal dégg ak topp jéggal suñu bàkkaar jéggal suñu rëcc rëcc lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñi nekkoon ci xarale gi waaye tamit kazalika di jaajëfal la maison du Coran nga xamante ne nii yitteem yépp moom moo di jàng alquran ak jàngale ko yàlla yàlla defal dégg topp wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 bois rouge conçu minutieusement finition ba la liggéeyu menuiserie ca finition bala ay moquette yu mucc ay yoo xam ne ña nga bàyyeekoo Iran yi bàyyeekoo Égypte yi bàyeekoo turki yu am grande finesse ak ay beauté yoo xam ni macha allah yu taaru lool am nañu ay housse pour fauteuil am nañu ay matelas am nañu ay tableau décoratif yoo xam ni macha allah am nañu tamit ay jardin yoo xam ni gazon la wala synthétique am nañu ay moquette pour jàkka ay moquette pour couloir ay matelas ak ay oreiller orthopédique